yëpp wuy si woote bi ñu tàmbali ko ci fi ñu dëkk muy Grand te ma nekk fii ak yeneen responsable politique yu ma bokkal parti ak yu ñu bokkalul parti mais bokkoon coalition ci ay jongante yu bari te ñoom ñëpp tey ñu wuy woote bi ñu woote di liggéey bu ñuy tàmbali te muy liggéey politique donc ñi fi nekk ñëpp ku ci nekk ci sa tur ak sa sant ñu ngi lay nuyu te di la gërëm dañuy wax ni dafa xiin moo tax mais bu dul woon li presse bi bëgg a dem ku bëgg a gañeb réew wala nga jiite ab gox taw wala naaj warula arrêté ci liggéey bi ngay def mais comme suñu mbokk journaliste yi ñemewuñu tawte moo tax ñu accéléré euh, li may wax lu simple la mooy damay moytu lépp luy déclaration politique parce que li ñu fi indi lu simple la mooy président Idrissa moo ñu sant liggéey bu bees liggéey bi mooy dañu nekk ci commune bu ñuy wax Thiès Ouest nekk fi comme yeneen ñaari commune ñuy ñett yu composé ville de Thiès ñuy dem ci ay jogante ak organisation bi ñu jële woon ca PDS doon ko ci di ko continuer ba réew mi ñëw ñu créer ay stratégie mais politique dafay dox te buy dox ay phénomènes yu bees di ñëw da ngay adapté wu ci situation bu bees bi 18 centre de vote yi nga xam ni moo nekk ci biir commune Thiès Ouest Idrissa dafa ni maire responsable politique commune bi fenn fu ci nekk nañ ko fa sampal comité électoral composé de dix à douze membres buñ ko dajalee sur les dix-huit dix yi rek ça presque cent sur les dix-huit on peut atteindre cent quatre à deux cents personnes mu nekk l'équipe politique de la commune Thiès-Ouest bi nga xam ne buñ ci jógee kenn ku ci nekk lañu la sant mooy bay ci sa wewu tànk boo dëkkee Grand fexeel Grand mokk ba ñu gañe ko ci centre bi boo dëkkee dixième wala nga dëkk HLM sa liggéey nekk nooy def ba ñoŋal parti réew mi ci fa nga nekk pour que ñu mën a gañe gox boobu suñu dajalee efort yooyu yëpp nag mooy joxe comme ni mu ko daan joxe une victoire éclatante au niveau de la commune Thiès-Ouest comme dans les autres communes mu nekk une démarche boo xam ne yàgg na ci ville de Thiès et incha dañ koy dem maintenant vers le département et vers la région de Thiès santaane bii lay Idrissa santaane bu ko santaane nag ñun ñëpp dañu war a fàtte suñu bopp xam ni parti bi moo ñu ñor suñu parti bi ñoree leneen loo xam ni dafay yàq doxalin bi dañ cee war a gëmm te xippi ci lii boole nit ñi pour que ñu jëm ci kanam. damay wax ne Idrissa suñu nawle la bu ñu santee liggéey waruñ cee yaafus te foog naa defar Sénégal ñun ñoo ciy gën a gañe ko Idrissa ndax it lii yàlla di teg doomu aadama ba mu war a ànd ak coono pour daw di wuti li mu dunde yàlla teggil na ko ko donc buy sonn pour Sénégal nit ñi dañoo war a xam ni intérêt réew mi moo ko ñor loolu nag tey mooy tàmbali bi te pour wax ni devant la presse que ni amul lenn luñ ci def pour farfarloo dañoo woote mercredi ca mairie ñëpp toog ñu ni lii ak lii mooy poste yi kenn ku ci nekk wax pour que suñu ñëwee tey liggéey bi gaaw moo tax bi ñu ñëwee ñu liir bureau bi te gisuñu benn contestation mooy procès verbal bi ñuy jëlee fii mën nañ koo signer contre signer ko par tous les présidents de secteur ñu jébbal ko président sa semaine prochaine ñu dox jëm ver Somme bi ci topp ñu dox jëm ver rendu leen ba ca topp feneen ba ca topp ba 18 yi mat te tey boo seetee monté nañu 3 mooy ñetti bureau de vote yi nekk biir Grand Thiès bu ñu demee it fu ci mel ne dixième ñetti ñu la fay demee muy croix rouge muy peut-être Marème Soda Maam Soda ak bu fële donc noonu lay demee en un mois deux semaines on doit pouvoir terminer le travail ñëpp jeex ñu doo commencé nag dox ci politique bi continuer cee dox ku waxati ñu xam ne kii wax diw la xam nga bu ñu fi jógee tey képp ku dégg Ibrahima ba mu wax di nga xam ni ah coordinateur comité électoral bu école Ali moom moo wax bu journaliste di tendre ci micro ci problème politique xam kañ koy tàllal kan la pëccëxloo bi moo doy kenn ku ci nekk da nga war a xam ci li ngay waxee lan la responsabilité ñu situé nit a ngi transhumé dem ci parti te amul benn ndombatang ñu nekk ci pouvoir bi di ko profité naan diw jóge na réew mi ñëw te diw moomu tekkiwul woon fii dara. loolu lañ bëgg mu takk et les postes dañ koy confier ñi nga xam ni bu Idrissa dee ñu dee bu dundee ñu dund parce que dunduk Idrissa mooy dund Sénégal lii mooy sabab liggéey bi du leneen ñu bëgg nag nit ñi xam ni ñett ñii ñu jàkkaar lool te pouvoir bi yaakaar ni mooy tax pour ñu changer perte temps la muy xaalis bi ñu jël dugal ci dëkk bi su ñu soxlawoon xaalis dem ci Ablaye Wade yéwénug Macky Sall yéwénug Abdoulaye Wade jegewul sax Macky sàll jegewu ko kuy wër nay dugal ci nguur gi te Abdoulaye Wade leen gënoon tàlli te jënduñu beneen bi mooy xoqatal boobu mooy perte temps bu mag bi nag ñun ku yaakaar ni mën nga ñëw xoqatal pour ñu bàyyi Idrissa topp ci yow yaa ngi sonal sa bopp def nañu dikk def nañ police yi on a fait les prisons mais toujours derrière le frère Idrissa ñiy transhumé nag jamonoy parti ba tey et ils continuer en transhumer parce que prochain pouvoir bi incha allah dinañ fekk si Idrissa ci pouvoir bi ñu ko bawoon dem feneen ñooy dellu soit fekk su ko bu remplacer Macky Sall donc loolu problème mu au conseil des collectivités je crois que parti bi bu ñu waxagul xaar le président Idrissa ñun responsable de base yi jot déjà prononcé wu nañ mooy ndomb tànk boo xam ne day nasaxal économie Sénégal soxlawuñu ko assemblée bi fi nekk rek amul njëriñ. beneen bi ci topp amul njëriñ nga bëgg ci yokk beneen pour installer une équipe politique di leen fay million jox leen i oto ñu wër ci dëkk bi loolu la ñu ni man ak keneen ku mel ni man ba ci képp ku bokk réew mi ak ku bokk ak ñun vision ànduñu ci loolu dañ koo voté woon non au référendum te jàpp naa ne bu président Idrissa ñëwee assemblée générale parti bi taxaw wala congrès bi taxaw pour ñu wàccee prononcé wu on va décliner notre participation ak ci au conseil collectif local bi loolu mooy li wóor leneen li mooy euh, ku jàpp ni li xew référendum bii passé mën nga ko def baromètre jàpp ni gañ nga Thiès yaa ngi ci erreur te li ñuy wax élection la ñu jëm bu fekkee ni li ñuy wax euh, am na ñu koy natable ci ay bés yu néew suñu jeexalee communes yi ba liggéey bi tàmbali danañ xam na ñun fii ñuy waxee fi lañ dëkk keneen kuy waxee feneen fa la dëkk buñ ñu dajalee suñu gox yi ñoo ñu ànd ak ñun voteel ñu. Euh, faluñu ñu toxu. faluñu ñu ñuy yëkkati mbagg faluñu ñu changer comportement dañoo nekk fii du dund ak nit ñi li ñuy dund bokk ak ñoom li ñu am partager ak ñoom souffrance yi donc suñu soxloo nit ñi dinañ ñu wuy si installation bureau kese mel nii heure bu ñu wootee assemblée générale wala partie bi mobilisé wu ñu xam ni Grand Thiès est derrière ses fils ses fils dignes et fidèles qui sont toujours restés pour l'intérêt de Grand Thiès du ñu toxu du ñu daw du ñu daay fii la ñuy toog bokk ak nit ñi seen Euh, bànneex bokk ak nit ñi seen naqar dama bëgg mu leer ci bopp nit ñi leneen li ci des mooy tey à partir d'aujourd'hui Ibrahima Ba Thierno euh, Ibrahima Bokum El Wali Soumaré Soxna Ndiaye ak ñeneen ñu mel ni ñoom nañ jàpp ni parti bi sas na leen mission boo xam ne résultat lay laaj ci ñoom amoon nañ yeneen ndomba mais bii doxalin bu bees la bu ñu bëgg heure bu ñu xëyee fëgg ñetti bunt wala ñeent nuyu leen saafonteeg ñoom ku mere woon Idrissa ñu gindi ko ku ko gëj a gis ñu jaajëfal ko képp ku ko gëm ñu ñoŋal liggéeyam loolu mooy suñu liggéey te ci loolu la leen Idrissa di xaar man mi it nee na ci loolu la may xaar pour que suñu demee ba pare ma présenté ko les dix-huit procès verbaux des dix-huit comités yi ñu installé pour que nag mu wàcc moom ci terrain bu wax ak ñooñu loolu mooy liggéey bi li tax mu arrêté tournée yi loolu la dafa ni ku pare installation ñëw ma wàcc ànd ak yow dem wax ak nit ñi lii mooy li ñuy xaar ñuy wax waa Grand seeni doom ñoo leen tàllal loxo tey boo xoolee li ñu naan bay ci sa weewu tànk ba ñuy installé biro yi dañoo dem seet ñi nga xam ne ñu ngi fii tey te yàgg mën ñoo jàppale ci liggéey bi ku ci mel ne Aram Sène ku ci mel ne Roqaya suñu frère euh, euh, Ousmane Diédiou ñoom Thierno Camara yàgg nañ ci donc ñooñu la ñu bëgg ñu taxaw xam ni seen frère moo leen tàllal loxo te loxo bi mu leen tàllal mooy loxo Idrissa te mooy loxo bi defar Sénégal lii moo doon sababu liggéey bi di sant di gërëm ñëpp ci teewaay bi di wax ni tey suñu xool sedd na euh, te vraiment lii boo koy sa gisee dina xam ni lim ñu sant ñu ngi ci départ baa ngi nii nag. Euh,